Abdoulaye Bob yegsi nañ ci Walf Quotidien xëy di ñu dégtal nganam démb ca Touba Mbacké njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye eh, jot na fa diisoo xalif général des Mourides yéen cabinet eh, lam fa mbëbët eh, ko matal béy ci waaram moom njiitu réew mi bokk na ci ne dina jublu ci saafara jafe-jafe ndox ma ca Touba ndoxum naan jafe fa lool ne dina ci indi saafara ak itamit mbënd ma leen di sonal saay su ne di mbirum assainissement njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye bu mu jógee ca tuba la dem ca Tivaouane des Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour yéen kaabidi Walf Quotidien génnagul ci googu lépp ngan le quotidien felu na ko ngan gu njëkkam ca Touba ak Tiwaawoon yéen kaabine Bassirou Diomaye Faye noonee la doxalee démb mbirum assainissement ak jafe-jafe ndoxum nan moom la gis ne war nañ ko mun a saafara ci lu gaaw foofee ca Touba Mbacké euh, bokk na ci xalif général des Mourides ak xalif général des Tidianes jot nañoo ñaanal njiitu réew mi yéen kaabidi la mandaane dalal nañ ko démb ca Touba ak moom euh, président Bassirou Diomaye euh, fay ma nga woon ca Touba Mbacké kii di xalif ba jot na ko jébbal euh, kaamil ak sijaada bokk na ci tamit leneen ci xibaar mooy ca Zawiya Seydi El Hadji Malick Sy ma nga fa woon ca Tiwaawoon moom njiitu réew mi yéen kaabi di l'info la desandi Bassirou Diomaye fay ca Touba ak Tiwaawoon yéen kaabi di Sud Quotidien def na ni Abdoulaye Wade ak Macky Sall defoon dem ji kilifa diine yi yéen kaabi di yor yor gi di président président eh, jublu ci saafara jafe-jafe ndoxum naan ca Touba mbirum assainissement réew mi quotidien dellu siwaat na ci ngan googule yéen a kaabi di laas ne bett na ñëpp moom président Bassirou Diomaye Faye dem na démb ca Touba eh, wutali Tiwaawoon won a kaabi di Le Soleil xëy duñu dégtal eh, banaana beek njaay mi na muy demee ca Sédhiou ña ngi cay gis seen bopp yéen a kaabi di Walf Quotidien di ñu dégtal njiitu réew mi Macky Sall mi ñu fal bees envoyé spécial bu 4P yéen a kaabi ne naka la ci boppu APR bu ñu deful ndànk jafe-jafe mun na ca am yéen kaabi di Tribune jafe-jafe sax tàmbale naa nuy aussi ci APR kaddu ga doonatul benn parti baa ngi ci coma kenn déggatu leen mu ngi ci yéen kaabi di Tribune 24 heures ne Barça wala Barsax jot na nañoo teg loxo ñaar fukk ak juróom ñoo xam ne bëgg nañu dem eh, ca tugal jaare ko ci gaalu loocoy ca jas nag lañ leen tegee loxo yéen kaabi Stade ne kan mooy teg loxo kubba bokk na ci Ligue des Champions eh, quart de finale yi dañ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 Facebook Seydina Mohamed woo leen imam Mohamed Sakho ci 347 596 2036 wala ngeen woo Adja Sali Sarr ci 917 648 9381 bu dee soxna Soda Thiam oote leen ci 917 600 0082 mën ngeen a woow itam soxna Ndeye Fatou Diop ci 646 645